Al Madina Travel Salum Jidda SeneInfo International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokk yu tedd yi ñu ngi àndaat ak yéen ci seen jotaay jotaayu fiq Eh, fiqhu nag ni ma koy waxee toujours dafa soxla teew teew ndax soo absenté rek am lu laraw soxla teew eh, am na ñu ko jàppee lu jafe wante jafewut ci teew ci ku teew laa wax ku am xudur léeg-léeg fukki minute yi ngay déglu eh, bind bés bu ne seytaane na la dafa métti fàtte loola ne ki ko préparer mën na am def na ci ay waxtu xam nga mën nga def ay waxtu pour am fukki minute comme mën nga ko bañ a def waaye ki mën a préparé darsu waxtu pour jox la ko ci fukki minute ah déglu ko rek warul warul jafe te bu ñu xoolee yi ñuy def ci bés bi yi ci wut xam-xam ëpp solo bari na te duñ ca yokkat parce que dañu nekk ci suñu comfort zone waaw rawatina xam-xam nag bu nga xam ne yonentu nee na ku yàlla bëggal yiw rek jox la ko man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin muy xam-xamu fiq moo tax kuy toppatoo xam-xamu fiq rek yëgal ni yàlla bëggal na la jàmm ku ko sàgganee nag ah tabarkalla eh, tamit eh, eh, la jàngalekat ba waxoon ni if you only do things you are good at you will never learn anything su fekkee li nga mën rek ngay def nee na kañ ngay yokk kañ ngay yokku doo yokk mukk waaw eh, benn bindkat defe naa eh, how to read a book eh, la tudde téere ba mu ni <clears throat> léeg-léeg léeg-léeg nga gis ku yore téere ne téere bi dafa ma ëpp dafa ëpp sama bopp mënuma ko liir mu ne loolu rek tax nga war ko liir nag waaw moo tax ñu ngi encouragé suñu bopp te di encouragé ñiy déglu yëpp waaw surtout ñuy ñuy déglu tey teewul tey def lecture di ko baril amoon nañu sëriñ bu nga xam ne du génn mukk te yorewul téere ci la ñu ko jëlee ñun ba du ñu dem fenn te ñu téere a ah, mënul nekk bu ñuy tukki sax suñu bagage yëpp daanaka téere lay doon ndeysaan moo tax bu ma gisee jullit bu bóot daf may jaaxal waaye ah, jullit bu wéet kooku kenn mënu ko dégg kon nag <clears throat> ñu continuer ca lancé ba ñu nekkoon eh, waxoon nañ leen ne boroom xam-xam yi seen delluwaay ci naka lañoo jëfandikoo euh, qadiya bi wala nan la ñuy def ci qadiyatu sujudi sahw sujootu njumte yu juróomi xadis la dellu muy ñaari xadisu abu hurayra ci saxiixayn ak xadis bu abu said alxudri ca muslim bu ibnu masud ca buxaari ak bu ibnu buxayna ca saxiixayn xadis ñu jàngoo nag yéen euh, barke démb euh, ca la shafiiyatu euh, sukkandiku malikiyatu sukkandiku ci xanabilatu sukkandiku ci al sukkandiku ci ñu xool ku nekk ci ñoom nan la ci sukkandikoo ak bu ñu jeexalee nan la ñuy gisee ne gis-gisu imam malik niñ ko waxe woon moo gën a mucc waa kër Shafii rahmatullahi alayhim dañu wax ne sujjoot yëpp qabliyu la balaa nga sëlmal ñu tegtaloo xadisu Abu Saïd al Abu Saïd al-Khudri xadisam jooju yonentu sallallahu alayhi wa wa sahbihi di wax ne ku sikk ci julli xamut ñaata la julli ñettam ñeent na wëcc sikk ga te yokk ci li mu wóolu bu paree mu sujjoot ñaari sujjoot bala mu sëlmal su fekkee juróom la julli woon ñaari sujjoot yi tollanti nañ julli ga su fekkee ne ñeent la ñaari sujjoot yi toraxal nañ seytaane xadis jàng ci muslim waaye <clears throat> li leen di eh, raddu mooy xadis yi nga xam ne baada salaam daf cee ñëw mooy xadis yi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi sallam daf cee digale ñu sujjoot gannaaw sëlmal ñu taawil ko waa kër imam Shafii taawil ko naka lañ ko taawile ñu ne bépp xadis <clears throat> boo xam ne yonent maanaam am ci ñoom ñu wax ne yonentu bi sallallahu alayhi sallam ci xadis ji ñu wax ne dafa sujjoot baada salaam qabla salaam la naroon a sujjoot waaye dafa fàtte moo tax mu sujjoot baada salaam loolu nag lu sori la ndax dafa soxla tegtal te amut ko ñaareel bi am ci ñoom ñu ne sujjoodu baadi nekkoon na gaa waaye des koo folli loolu dafay soxla dalil te amul dalil loolu it lëngal la goo xam ne ànd naag jàppandik boole hadis yi bu ñu leen mën a boole ba ñu dëppoo bu lëngal ñu tegtaloo yi ci xel ñu ne ndax sujootu jamaj jàngu wàññeeku wàññeeku la ci julli gannaaw dangay ngay jàng wàññeeku wàññeeku ci julli lu ñuy jàng ca biiram lañ ko wara a jange booy jàng jëmm ca jëmm ja nga koy jamee da koy jange bu fekkee ne sëlmal nga génn nga jëmmi julli ji kon mënatoo koo jam mënatoo koo jàng ñu ne kon sujjóot xabli yu la war a nekk gannaaw dafay jang julli te looy jàng ca jëmmu ja ca biir jëmmu ja la jàng ba yi nekk doo bàyyi ba génn jëmme la ngay jam la ngay jàng jàng mooy fixé alaxnaaf <coughs> mooy xanafiyatu ñoom ñu ne sujjóot yëpp baadiyu la ñu tegtaloo xadisu zul yadayni ak xadisu ibnu masud zul yadayni xadisam jooju yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari ràkk yi ñu fàttali ko mu indiwaat ñaari rakka ba mu sëlmale sujjoot baada salaam xadiis ibnu Mas'ud ne yonentu sallallahu alayhi wa dafa julli tisbaar juróomi rakka euh, ba mu paree sujjoot baada salaam ñu ne kon sujjoot yëpp baada salaam la war a nekk ñoom it ñu def ni waa kër Shaafi'i taawil xadiis yi nga xam ne sujjoodu qabli yoo ci nekk ñu ne qabla an yusallima njëkk muy sëlmal maanaam mi mooy njëkk muy sëlmal ñaareelu sëlmal maanaam aji julli bu ne assalaamu aleykum balaa moo salmal ñaareelu salmal mu sujjoot ñaari sujjoot wala qabla an yusallima ñu ne mooy njëkk muy salmal ci sujjootub jamaj bi mooy aji julli ji bu jullee ba eh, eh, noppi ba sëlmal sujjoot ñaari sujjoot soog a sëlmal sëlmatub jamaj bi ñu ne qabla salaam loolu lay firi waaye wul njëkk eh, njëkk sëlmal dëgg-dëgg njëkk dëgg-dëgg salmali julli gi loolu it amut sikk ne tumuranke ne lool lu sorik euh, euh, euh, teg am tegtal la <clears throat> maanaam du lu ñu war a mën a tegtaloo ñoom it ñu tegtaloo xel ñu ne sujoodu sahwi lu tax ñu yoonal ko mooy dafa am soppiku gu am ci julli gi te julli dañ ko limité ne nangami rakkaa nangami sujjoot la nangami rukkoo la nii la war a mel su fekkee nag ne danga juum ba tax nga soppi melo wañ ko melaloon nga nar caa sujjootaat yeneen ñaari sujjoot te sëlmaloo yokku nga ko soppeeku di kon nag jaadu na sujjoot ya nekk gannaaw buñ sëlmalee ngir lan siyaanatan li maqadiri solaati ngir ñoŋeel dayo gi nga xam ne dañ koo daytalal julli ñoom ñépp nag imaam Malik tontu na leen ne leen ku nekk ci yéen ñaar xadis yu wér euh, wuute nak yen zawahirul ahadis yi wax ne yonentu sallallahu alayhi wa sujoot na sujoot qabla salaam dafay worook li nga xam ne moom la waa kër Abu Hanifa ta wax xadis yi wax na yonent bi sujjoot na sujjoot baada salaam dafay waroog li nga xam ne moom la waa kër Shaafi'i yi wax soo ko defee kon nan la ñuy doxalee imam Malik imam Malik ne dañuy sóobu sóobuwaayu boole mooy loo xam ne nii buñ ko defee xadis yëpp danañ leen mën a jëfandikoo te mu dëppoog fiqhu ndax ci wàllu goog la ñuy yëngatu mu ne buñ xoolee xadisu Ibnu Buhaynata dañuy gis ne xadisu ni bu xay na te dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi sallam dafa fàtte taaye taaye digg bi muy taaye gu njëkk moo tax mu sujjoot qabla salaam ngir ne dafa wàññi ci julli gi kon ñu xam ne kon fépp foo xam ne wàññeeti nañ fa rek qabla salaam la ñuy sujjoot yonent bi dafa sujjoot njëkk muy sëlmal ngir lan dafa fàtte ab taaya fàtte goog mu fàtte ko wàññi la gannaaw wàññi na mu sujjoot qabla salaam kon fépp fu ñu wàññeeti ñu sujjoot fa qabla salaam buñ xoolee xadis ibn Mas'ud gis ne ne yonent bi dafa yokk benn rakk ndax juróomi julli la def tisbaar juróomi rakk la def tisbaar xadis day ni gis nañ ne it yonent bi sallallahu alayhi dafa sëlmal ci ñaareelu rakk bi kon dolli na sëlmal bu ca bokkut ak wax ja nga xam ne am na ca ci Zul Yadayni bi mu waxeek moomul tontu ko ba mu wóor ko dafa euh, sëlmal te jotagut mu indi la ca des bu mu ne yeneen ñaari rakka yokk googu am ci biir julli gi ngir fàtteloo gi ko yàlla fàtteeloo ngir mu mën a yoonal tax mu sujjoot baada salaam kon ci ñaari xadis yëpp yokk a tax yonent bi sujjoot kon nag fépp foo xamee ne yokk am na fa gannaaw sëlmal la ñuy sujjoot bu wàññi amee njëkk sëlmal la ñuy sujjoot bu ñuy wax wàññi nag ponk taxut ñuy wax ponk moom buñ ko wàññee fokk ñu indi ko bu dee sunna lañ wàññi nag loolu buñ duggee ak xuus ci biir sujoodu sax wi daañ ci ñëw moom it mu tegtaloo xel gannaaw bu mu tegtaloo teg siile ne sujoodu sax wi bu fekkee ne la ko waral wàññeeku la dañuy jang te jàng kon ci biir julli la war a nekk warta nekk ci biti mu dëppoo caag ñoom imam Shafi'i ñoo waxoon loolu mu ne bu dee sujoodu sahu dolli la kooku lay tax ñu koy sujootal mooy toroxal seytaane moo tax jaadu na mu nekk ci gannaaw buñ sëlmalee ndax ñaari dolli duñ am ci biir julli buñ ko defee ci biir julli gi ñaari dolli dafay am fii mu dëppoo faak euh, nazariyatu waa Abu Hanifa gis nga boole ne seen ñaari nazariyatu yëpp jëfandikoo hadis yëpp fiqhu nangu lim def mu make sens lool sax béppuk wàññi qabliyu la béppuk euh, yokk baadiyu la ci sujjoot moom daal bu ñu bëggee tënk dañuy wax ne ñaari ilimaan yi muy abu xanifa ak shafii dañoo lëngal yenn xadis yi te boole leen jàppandi imam malik ak ahmad ñu soobu soobu boole xadis yi boole bu jàppandee moo gën a yell wala moo jaadu sax waruñoo lëngal waaye bu ñu xoolee diggante Ahmad ak Malik Malik it dafa indi munasabatu ci tàqali diggante wàññi muy sujootu qabla ak diggante yokk muy sujootu baada te imam Ahmad moom dafa ne fu yonent bi sujootoon baada ñu sujoot fa baada fu sujootoon qabla ñu sujoot fa qabla foo xam ne amul dara euh, lu ca wàcc mooy xewutoon ci dundu yonantu wala ci julli yonantu ñu sujjoot fa xabla kon bu imaam Malik bi mooy gën a dëppoog euh, texte yi moo gën a dëppoog tamit fiqhu xel tamit nangu ko moo tax borom xam-xam yu bari yoo xam ne bokkuñ sax ci ngiram ànd ak moom ci masala mi nga gis ne masala bu fekkee ne sa ngir meneen ngir def ko ca gën a dëppoog njub bul cot cot loo ba ne man ci ngir sàngam laa nekk bu doon lool kon imaam Nawawi du bàyyi waxi Shafii ànd ak Malik ci bile masala haada eh, ñu taxaw fii tabaarakallahu ba ëllëg ak jàmm ñu delluwaat ci jotaay bi di leen fàttali rek ni eh, képp ko xam ne yaa ngi déglu yi la raw mën ngeen ko dabaatal mën ngeen ko dabaatal ci eh, ICFA TV mën ngeen ko dabaatal ci ICFA TV ICFA online dot com wala ci Facebook page Facebook bi ICFA TV on YouTube ñu leen di euh, fàttali ngeen euh, subscribe maanaam ngeen inscrire te bés bouton notification yi nga xam ne lu ñu dugalati foofu rek euh, da ngeen bokk ci ñu koy njëkk a seetaan bi idnillahi tabaraka wa taala di leen fàttali diine bi nga xam ne moom la ñuy organiser fin d'année bu nekk te mu war a am le 22 bi ci weer wi ñuy dugg bu idnillahi tabaraka wa taala yal nañ ci yàlla yóbbu hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo di may émission bu mat bi